لو ملتي ميديا مولين دي ميسين اميسيون السلف مع القران بسم الله الرحمن الرحيم asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñu dellu si ci sunu jotaay asalafu ma alquran muy mag yi ak alquranul karim ñu koy amee ci kër gi di la maison du Coran au Sénégal waaye di jaajëfal bu baax donga daara ak doomi daara yi nga xam ne ñoom ñoo ciy ànd ak ñun loo multimédia ñoom ñuy jaay lépp lu jëm ci matériel électronique fële ca Sandaga te ñuy jaay lu baax ñëpp leen ko xamee woote ci numéro yi rek di nga jokkoo ak ñoom waaye fas yéene àgg ak ñoom te sooy jëflante ak ñoom yaa ngi jëflante ak ñooñ daara yaa ngi jëflante ak njabootu alquranul karim comme niñ leen ko diggee woon ci jotaay bii weesu waxoon leen ne dinañ leen andil tomb boo xamante ne jombul ñu baree bare dañ koy laaj lan moo teewoon ñu bind alquranul karim dajale ko ci benn kaamil ci jamono yontu bi sallallahu alayhi wa sallam bala muy faatu xam nga xamal nañ leen alquran bindoon nañ ko waaye ñu andi moo wasafaat yi ci nekkoon waaye dajale wuñ ko woon ci benn kaamil ba ñu mën a téye ne kaamilu alquranul karim baa ngi nii léeg mu jaaxal ñu bari léeg ni ay nit di ko laaj wala léeg nga dem fenn jombul noonu lislaam yi wala ku xamul daal di cay bëgg a jam lislaam te yow doo xam loo koy tontu kon euh, loolu su fekkoon jotaay ba ca daara ja la mën nañ caa yaatal lool waaye ñu déglu ñu tënk ko ci ñeenti tomb yii nga xamante ne moom moo tax alquran dajale wuñ ko woon ci ab kaamil ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ca jiitu mooy que ne taqaatuul waxya wa tadaaxulu suwar wal ayat mooy que ne waxyu bi dafa daan wàcc su commencé woon wàcc day dem ba ci biir maanaam su xasee ba dagg au lieu suy ñëw suba mu andiwaat laaya ya nga xam ne ñoo war a topp ca yooyee laaya masalan tey waxyu mën na wàcc ci suratul baqara suba au lieu mu ñëw àggali sa aaya yooyu nekk ci suratul baqara mu wàcc ca imran wala mu wàcc ca kahfi wala mu wàcc ca taha wala mu wàcc ci beneen saar kon waxyu bi da doon dagg su xasee ba dagg andi benen yoon ay laaye yoo xamanteni ñu ngi benen sar saar wala mu andi jëmee benen saar te xam nañ ne wal haadihi kenn mënu cee dajale alquranul karim ndax alquran wax nañ leen ne na mu nekkee ca lawxul mahfuz ak ni mu wàccee bokkul kon loolu benn la ci mooy waxyu bi dafay dagg muy révélation bi andi laaye yoo xamante ne bu subaa du andi laaye ca topp day andi yeneen laaye ca beneen saar kon fekk alquran gépp matul rek kenn mënu ko dajale ci benn benn téere ñaarel bi ñaarel tomb bi nga xamantene bokku na ci tax kenn mënu ko wàcce kenn mënu ko bind ci ben kamil moy nuzulul wahyi ala ghayri tartibihi moy kané alquran ni ñu ko gisee nii nga xamantene sar wacce jitu moy fatiha ba ca top moy baqara ba ca topat moy imran ba ca topat moom mooy nisa ba ca topat moom mooy maida di wàcc ji ñëw suuf ba ngay kérok ngay àgg ca suurat nas noné nga xamné noné la nekké ci kamil gi noné la mel ca allahul mahfuz waye alquran wacce wut nonu ñun ñëpp xam nañ ne saar wi njëkk wàcc moom mooy iqra muy suuratul suuratul iqra iqra bismi rabbik moom moo njëkk wàcc kon nga xam ne am na saar yoo xam ne danga koy gis ca kaw waaye mu bokk ci saar yi mujjee wàcc xam nañ ne baqara moom mu nga wàccee fële ca madina am na saar yoo xam ne da nga koy fekk ca euh, mujjug alquran ñoom ñu nga wàccee ca màkk te yonente bi madina la mujjee kon da ngay gis ne wax dëgg fi yàlla ni alquran toftaloo ak ni mu wàccee bokkut kon loolu moom moo tax mënuñu ko woon mënuñu ko woon bind ci ben téré ci jamono yentibi sallallahu alayhi wa sallam faw mu mat sëkk rek ñu doora xol dajale ko ban ban mo ci top ban ban mo ci top ba kérok ñukoy mëna bind mu mat ñettel ba moom moy qisarul mudda bayna akhir ma nazal wa bayna wafati nabi sallallahu alayhi wa sallam cause bi tax ñu won bind alquranul karim ci ben kamil moy bi alquran di mat manam laye gi mujjé wàcc nga xamantene borom xam bi andi nañ ci ay yaatal ku ci nekk ba mu wax waaye li gën a fës mooy wattaqu yow man fële ca suratul baqara diir ba nga xamante ne ci la alquran mat ak bi yonent bi faatoo dafa jege lool am nañu wax ñetti fan am nañu wax ci benn même jour bi ala kulli xaal borom xam-xam yaatal nañ ci loolu buntu boppam la kon diir boobee kenn mënu cee dajal alquran soo xoolee ci feebar la fekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam saxaaba yi ñu ngi tal feebar ku yonent bi sallallahu alayhi wa sallam pour mu jóg kon ci ñetti fan wala benn fan wala ci ay waxtu kenn mënu cee dajale li nga xamante ne moom mooy alquran kon bi alquran di mat ak deewuk yonte yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam fatom ben la kon yaakaar na boobu itam tombu bu leer la bi nga xamantene mom moy ñentel bi tax alquran dajale wuñ ko ci dundu yonte bi sallallahu alayhi wasallam ci ben kamil moy adamu wujudi dawa'il jam'i kama fi ahdi abi bakr moy kané sabab yi tax ba alquran dajale ko ci ben téré nek farata nek lo xamantene obligation la mu gaaw lool amuloon ci jamono yonte bi sallallahu alayhi wasallam mathalan jamono yonte bi saxaaba yi duñ jaxase alquran parce que suñ juumee yonte yàlla Muhammad mu ngi fi te jamono Abubakar yonte yàlla Muhammad faatu na nekkatu fi eh, jamono yonte bi eh, ñi nga xam ne ñoom ñoo mokkaloon alquran ñu ngi nekkoon ci sécurité parce que am na xare yu mag yoo ne ci ginnaaw yonent bi la door am eh, dinañ ko andi ci ci ci jotaay yi di ñëw la tax ñu dajale alquran ci benn téere ci jamono yonent bi jamono Abu Bakr ni Sadiq parce que ñi mokkaloon alquran dañoo commencé woon di dee ci xare yi te jamono yonent yàlla Muhammad loolu amul woon te même su fekkoon dañoo dee ki leen di corriger te di leen joyanti moom mu ngi fii waye li nga xamne mom mo werté wor ku nek war ko xam moo di yonte yàlla muhammad ali sallatu wasalaam bala muy faatu bala muy faatu jàngal na sahaba yi alquran yep na mu toftalo ndax jibril la dan ñëw ci mom wéru koor gu nek yonte yàlla muhammad ak jibril di jàng alquran jibril jàngal ko ko après yonte yàlla muhammad dal di koy tari wat ba at mi nga xamne ci la yonte yàlla muhammad faatu tari nako ñaari yon ci jibril manam jibril jàngal nako ko ñaari yon motax amna ci sahaba yi ñoo xamantene yonnte bi sallallahu alayhi wasallam sallam ñoom maanaam ñoom tari nañ alquran karim ba mu jeex ci yonnte bi zaid ibn sabit mi nga xamne mom moy dajale ji alquran mom tari nako ñaari yoon comme ni nga xamne noné lako Abu abdurrahman as-Sulami netle nettalee al-ardatu al ardatul manam bala yonnte yont yàlla Muhammad di fatu wona zaid ibn sabit ba mom mu daal tari alquranul karim ba mu jeex ci kanam yonnte bi kon ñoom mokkaloon nañ ko comme nga xamne noné la toftalo waye nekkut won lo xamante bind nañ ko daal di koy dajale ci ci ci ben téré kon yaakaar naa euh, leer na ci boppu ñëpp tomb yi nga xamantene ne mo taxone taxoon alquranul karim dajale wuñ ko ci ben kamil ci jamono yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam kon li mo nekkon suñu yu majalis tay mo nekkon suñu yu dara ci asalafu ma alquran di jaji falat bu baax ba suñu sponsor mu nekk lo multimédia fële ci Sandaga waye ak keur da bax textile fële ci marché Zeng ci Pikine ما كان من صواب فمن الرحمن وما كان من خطأ فمن نقصان صلى min على النبي وآله ما nabiyi wa أو تهلل محرم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته l'eau multimédia est spécialisée dans la vente et la prestation de services en proposant une large gamme de matériels informatiques, bureautiques, électroniques, réseaux, divers accessoires et services liés aux TIC, technologies de l'information et de la communication. Avec 11 ans d'expérience, la société L'eau Multimédia est composée d'une vingtaine d'employés et participe au développement du pays et à la création d'emplois l'eau multimédia. Nous sommes au 27 avenue Émile Badian, angle Paul Hall Dakar, Sandaga, Lalouourous. Téléphone 823 81 87 ou 77 998 04 04. Service commercial 77 306 44 83 ou 76 637 45 45. L'eau multimédia moi de di à émission al Qur'an